sëriñ Tuubaa liggéey bi rëy rëy mën ko tënk ñetti mbir mooy jaamu yàlla ak liggéeyal yonent bi yàlla bi ak ak jëriñ bindee fi yàlla yi donc ibadatullahi wa xidmatu rasulillahi wa nafu mooy jaamu yàlla ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa ak jëriñ bindee fi waaw loolu rek mën nga wax ne mooy liggéey sëriñ Tuubaa parce que wax na ne darajeet yi kaw ni ya abdallahi xadima abdihi ibni abdillahi man sama daraje man sëriñ Tuubaa rek mooy liggéey mooy jaamu yàlla liggéeyal jaamam ba di yonante bi sallallahu alayhi ba di ibnu abdullah waaw eh, cheikh Sidi baax ma wax ko ne wa ma aybuhu illa ibadatu rabbihi wa nafaul wara fi subhihi wa masaihi ne sëñ Tuubaa daal am na ayib ñaari ayib sax la am waxeenu arab la ayib bu njëkk bu may jaamu yàlla ñaareelu ayib bu may jëriñ bindee fi kon bindee fi yëpp lu sëñ Tuubaa jëriñ yemale ko ci nit ñi yemale ko ci mala yi yemale ko ci jën yi ko ci picc yi ñëpp lu yàlla bind rek moo tax ba muy ñaan yàlla yàlla ñaanam gu ba ko bàkkee ba ne ko malikal mulki ya man jalla an xawadin yow mi nga xamni yaay borom lepp ak fepp ak ñepp ak lu ne ni ko bàkkee yalla da ko ne lol di loko agal rek may lako mu ne ko yàlla na nga yërëm bindeef yëpp nee ko yalla nga yërëm julit yi nee ko yalla nga nee ko yalla nga yërëm sama njaboot nee ko yalla nga yërëm sama bok nee ko yalla nga yërëm wa senegal da ko yalla yàlla nga yërëm bindeef yëpp bindeef yi ñëpp ci lañ bok kon may wax ne suñu tuwaa ñetti mbir yoy rek la jaamu yalla liggéey yonent sallallahu alayhi wasallam ak jëriñ bindeef yi bindeef yi ne ku yalla ci nga bok koku nak biko yalla defé lim ko defal nak te loolu laata mu koy am dafa dafa dafa daj lu ne dafa kañ ñi da suñu fa daan wax ne dafa kañ ñi du luñ ko may du luñ ko sarax du luñ ko yéen da ko liggéey ba yàlla fayee ko ko bi ko yàlla fayee nag xam ne saa bu dat bi accès fay ko fay ko day dolliku te yàlla dogal itam dat bi bi natt bi tàmbalee woon ci la natt bi jeexee ci la fay ko yokkoo mooy nag ko képp koo xam ne nag mbégam sa mbéga mi ngi lay ñaan ngay santli ko si yàlla te lim daj lépp pendant daanaka 37 ans mu nekk ko ci loxoy tubaab bi ak seenu caay-caay seen i pexe seen i mbugal seen i coono mës ta sàkku ndimbal ci kenn ku dul yàlla ci santale ko yàlla képp la ñu mës dégg mu sàkku ci ndimbal kon ci la ñu mës a dégg ku ne gars yi santale ma yàlla képp ko xam ne sa mbég sama mbég sa mbéga saa bis bi accepté loo ci mën da ma ko defal santale ma ko yàlla ñu tàmbalee ci ganaar ba ci gëleem dégg ngeen loolu ba tay ñu koy nettali kon ci la ñu mës a dégg mu sàkku ci ndimbal li muy sant yàlla bari na lool waaye li muy bari bari ak li ko yàlla nangu lépp bëgg na mu gën a dolleeku ba ba mu wut ci ndimbal ci lañ ko mës ci ndimbal te bi mu toppee bi mu nekkee ci loxo tubaab yi ci moom képp la woon mës mës mësul ni un waaw ah, lim te tubaab xam ngeen seen seen i pexe seen ak caay seen i moyen ngay kenn ci zahir ñu coppati la ne la dañ lay sànki histoire coloniale bépp suñ tubaab ci mas a am dellu si waat tubaab bi coppati la yóbbu la nga nekk fa huit ans dellu si di dund amuloo liggéey sooxuloo bàyyi wala nga doon wax suñ tubaab lañ ko mas a gisee ku ñu mas coppati yóbbu rek quelques heures boo ko nekkee ñoom jeex na gën waxatu say wax ëllëg bu ñu lay màggal ay yeex la ñuy sulli kay def ci kees ñëw di jàng kër yi fi naan dañu koy màggal waaye jëmm joom kenn waxatu ko donc képp moo sa tàmb ci loxo joom tubaab bi dem am fa juróom-ñett ak ñu def lu ne ba mu dellu si di dund amatum léegi sooxut bàyyiwut la mu doon wax waaw moo tax bi mu ñëwee bi mu si mu ne maam Thierno fii ñu demoon day ba dellu si kenn dafa jaar ci ëllëg rus ndax noon bi de lu ne jëm na ko waaye néew na u néew na u te mës sàkku ndimbal ci kenn tam kon nag bis bii bu ñu accès ñu am taw feeqi yàlla euh, moom mu wax ne képp ku koo xam ne mbégam sa mbéga ndax natt bi koy altegoon mu tàmbali woon 18 safar 1895 yàlla dafa dogal ci 18 safar la jeexe ba mu jeexee nag yàlla ne ko lu ma la lu loon teg ci nattu jeex na te at yooyu mu natt yooyu li muy bari bari daan def ne at mu saa dat bi ñëwee natt yooyu day gën a yokku waaye bi ko yàlla jeexal nag bi dat bi la ko jeexale moo tax mu def mu def ko bisu cant def ko bisu ñaan bisu ko bisu cant digal ko nag ñoo daan ko defee fu nekk waaye Cheikh Mouhamadou Fadal ci baaxam ak yërmandeem ci la waxee nag ko defee ndax nit day wax ne looy def lu baax foo koy defee baax na waaye ñun taalibe li ñuy def ci lu baax Tuubaa a gën a sakkanee kon nañu daje Tuubaa yi ko fi defee kon loolu kon soxna si daanaka mën ngaa tënk ne moo waral bis bi mbokk yi nag di jóge fu ne ñu koy màggal nag ni ko ni mu ko ni mu ko déglee woon dañu koy jéeme noona mu di jàng alxuraan jàng ay xasaayit def ay berne sant yàlla daal ci dañ nekk moom bi weeru teroo ba léegi te it nekk ba faaw li ñu fi jàng ci ay kaamil rek ci bi weeru teroo ba bi ñu ko seete tey mat na 108 kaamil diggante kër gi ak daara yi nekk ndindi ak nekk àll ak bokk te li ñu fi jàng ci ay xasaayit bokk ñu fi jàng salawaatu ala nabi bokk ñu def ay istixfaar ak ak benn itam ñu ngi yàlla lañ yàlla bu ñëwee dañ koy nangu eh, te itam ñu ngi ci jéem ci ndigal yi sëñ bi wax ñu ciy dox eh, ñu ngi moytu eh, mbas mi nag xam nga lu ne wax nañ ko ci moom te yu ne wax nañ ko ci manipulation la ay création la am na amul yooyu moom duñ ci dugg ndax xam nga débat la yoo xam du jeex waaye lu ci mën di xew rek mooy ñun ay taalibe dañuy wéy ndigal gannaaw sëriñ bi wax na mas mi nga xam ne li ko sabab mooy corona bi coronavirus ab jaamu yàlla bu yàlla yebal dañuy ñaan yàlla mi ko yebal jëlee ko fi tey mesures yi nga xam ne borom xam-xam nga xam ne technique médicale bi ñoo ko moom muy médecin yeeg ñiy faj ak seen jàngale yi ñuy wax ñu def ko di moytu boole ci di ñaan boole ci ndax suñ tubaab dafa wax ne fa bi du'a in yasriful balaaya in yugidul balaa lu ko fi mën a jëlee xéewal lu a wa bi rajaa in yu gidul ataaya ak yaakaar ak xel mu dal ci la ci ci lay indee xéewal kon euh, lu doy waar la euh, warees na ci mën a xam itam ne yàlla rek fi nekk ndax puissance yi ñu amee doolee boo seet Europe ak Amérique ak Asie dëkk yu am doole yooyu Chine Europe de l'Ouest États-Unis bu ñu demee ba ka ci jiite réew yi sax mu koy dal da nga xam ne kon suñu rek fi nekk ndax bu doon ay précaution wala ay moyens rek mën a bañ a foofa waaye kon da xam ne nit ki loo am am doole rek sa doole su lu relative la. waye yalla moy borom dool absolu ji nga xamne moy def moy def luko ko te gëna moko fi indi nak Occident Europe ak mooy États-Unis ak Europe ak Asie sen développement bi ak sen technologie ak sen moyen mënu ñu ko xex te lam fay faat gis nga ni mu eh, kon dañu wara xamne dañu ne ci yalla du tee du tee nag ñuy moytu nak di def digël yi médecin yi ak fajj kat yi joxe ak digël yi sëriñ bi joxe di ñaan dem bolé ci nak yalla jël ko fek jamm waaw dal daal mën nañoo mën tax gis fi bo ñëw ñëpp tak nañ sen masque ñi ngi ci gel bi ñi ngi raxasu ñu ngi def li liñ diglé bu nekk di ñaan nak bolé ci ndax ñaan moom bu ñu koy fàtte ci mbir mi ndax day la nga xamne rek parce que ay mbass jaaroon na fi waye mbass mi boo gisee ni mu defee àdduna fi da nga xamne mbirum suñu borom tàbbi na ci wa ndax euh, goor ga nek amerique xam ngeen ko yeen ñep de ngeen lañ cey wax gëna fa nek ak moyen yam am yefi yi dugg ba dal ko dal jabaram kon xamne ne ko mbirum suñu borom la parce que borom ay moyen rek ay précaution ak laboratoire ak garde ak yëf kon dag ci mom kon nak ñu ñu gëm yalla loolu la ñu war a ak gëm yalla kon xamne yalla rek fi nek yalla moy tege nattu yàlla mooy tege nattu moko mëna teggi dañ ko ñaan mu teggee ko ci ñëpp teggee ko Sénégal teggeel ko àdduna sépp ñoom dal yàlla wéral leen ci ñoom dalagul mu bañ bañ leen a dal te yàlla jeexal ko ci àdduna si jàmm ci barkeb Sëriñ Tuubaa ak barkeb bisam bu tedd bi